loolee ngeen ma laaj Cheikh Ahmadou Tidiane ca la nekkoon di ko def ba dem mooy jàngale Serigne Touba ak delloo nit ñi ci bi ak xasida yi jàngale moom demam googee nag ba mu demee làqu ñu noonu làqoom bu sell boobee ak tegtal yeeg li mu ñu wan fii yëpp ci kër gi Cheikh Tidiane Seck kon bi mu làqoo 1992 93 mu commencé màggal di ko màggal ba fii ma koy waxee yow doon na ko defee Gerla Seck Gerla Seck bu ngeen ko xamul suñu digg ak moom juróom fukki kilomètre mu ngi ca ginnaaw Taïf Mbacke ñu daan wax Sadio léegi commune la dañoo soppi affaire yi commune gerte si kooku la ko daan defee at waaye lu mat juróom-benn at jàpp juróom-ñaar a ngi yoo xam ne Touba la koy defee sabab si xanaa kon da ngeen ko war a laaj lu tax sabab si mooy sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla yàlla dolli leeram moo fi mujj làqu ci njabootu sëñ Touba gi koo fi nekkaloon moom la fekk sëñ Moustapha Mbàkke Mouhamadou sëñ Mbàkke soxna loo ne ko Moustapha dama bëgg nga dëggal ma kër fecc Sam Jaxate te yoonu Daaru Musti kër gi nag ñi laa bëgg mu mel ni ak ko sëñ Moustapha di ko maame ne ko maam boo ma leen liggéey loolu jël sa xaalis ëpp moom xaalis am da koy maame bu jëlee xaalisam ne ko nag kon na mel ni ñu ma ndax am naa ñu ma ko liggéeyal woo sëñ Cheikh Touba Sam woo Cheikh Dial Seck woo sëñ Cheikh Diaw muy kër sëñ Mansour Diaw mii ak njabootam ci biir jotaay woo sëñ Sanga Diagne mu sëñ euh, fee ci dénk yi xam ngeen Sanga Diagne am dégg ko ñëw sëñ Sanga Diagne comme leen woo ñu ñëw mu ne nii laa bëgg sëñ Sang Diagne miinal ma kër gi Cheikh Diagne defal ma bâtiment ci wetu càmmoñ Cheikh euh, sëñ Cheikh Diaw defal ma bâtiment ci wetu ndeyjoor bi sëñ Cheikh Touba Sam defal ma ci kaskare sëñ Sang miine def ci kër gaango Cheikh Diagne dafa mang ay dongaam ak ay soxnaam fukki weer ak yaar def na ko mu yelwaan majjal bu donga yelwaane ñëw mu nga du doon yaar kenn lay doon pas-pas di ko dégg dënd yooyu di ngeen am ne moo neex ndigal la bun hmm. ayam tëgg Touba mu fii daal ku ne war naa laaj doon lu ko hmm. dënd yi da koo beesalaat pas-pas bi sëñ Cheikh Mbacke ko sëñ rijal njëkk a beesal sëñ Modou Sall ko daa ñëw ne ko boobu fi toog dañu daan dagu waaye ni ñu lay taxaw de mooy dañuy yor ju ñu rek góor jigéen ñi dana jaaxal ñu bari nag ndax góor jigéen bi baat ba kaw te gëmeeg yi daa war di leer ndax gannaaw yi fi dafa tasaaroo ci suuf daa war di leer nañ waaye nag mbir boo ko bëggee xam bu ca commentaire ña ko xam rek nga ne lu ko waral dañ la jox doy loolu mu jë doyoo bu soobee yàlla da ngeen ci jàmm ah. comme ñuy Serigne Cheikh Mbacké ne ko yow nag xalifa bu bees bi de dégg naa du wax borom 33 ans la borom na peeg joxe ku bëgg a dégg mu wax tey biñ dikkee fële taxaw rek di bàgg di dem ak ñëw di bàgg di dem rek ba mu jàgg moom arrêté dañ yëg ñu ngi li ko ba ci kanam sëñ Cheikh Mbacke mu ne képp jël ñoo koy dal ci bopp ni kii sëñ Modou moo am fit mu ne ko lu tax nga wax sëñ Modou Moustapha mu fit mu ne ko Darou Khoudoss gi li ma fi xam ci ay ku ak kanam mu dem ni ñu bàyyi dawul fanweeri at ak ñett Cheikh na tekk ba mu jàgg mu ne ko wax nga dëgg kuyee kanam yi am na a ngi yoo xam ne lu wut si doog ñaar ñaan la mu Touba ak sëñ Modou Sadio Touré mu laas kaa la ca baat ba ne ko loolu bu ne bàyyi rijaal waaye nag daa am góor gu fi daan tàggu bu ne lu ñu lay tàggoo muy rukk ji ñu ngi ko nag ma bëggoon a xam ba xam góor bu bees bi moom loolu neex na comme déet sëñ Cheikh dana teg ba mu jàgg mën a ko rijaal mu ne ko mbàkk mu ne ko lu yëpp lu ne ma ngay waajal dana kees sëñ Moussa Seck ab jarbaat tamit ñi la xasaayu ab sëtam ñu tuddee ko ko doomam a ngi fi ñëw ne day kii la jënd Moussa dana gees na ko rëkk jëwriñam yi la bokkoon mhm. Moussa na gaajo ko yëngu wala ah. lu ngeen di dégg gaajo mhm. ko commencé jëpp gaajo koo gee si si Moussa doon dégg fee maa ngi ñëw ak yow de mhm. te lee ca Sam Jaxate ne ko ma dégg ngeen ko fay def ku dugg nekk muy dal ak tur yàlla wi di jàll yi fekk la fa ndog weeru koor yàlla wi ngeen di ko fa togg di ko yóbbu doon yaar muy taw ci suñ kaw ñuy jël ndog yi rek yóbbu ndog yooyu nga xam ne wala ku ma tan tasul fa Baye Fall. yoon la boo xam ne ku ci xamul dara mën ci wax bu baax na nga ci maan. ndax Cheikh Ibra Fall mii ko def sëñ Bamba day am teg ko lii ak si dir jaalu laay. ba nga dégg ñu naan Baye Fall yeeg rijaal yi. na leen leer ne sëñ Bamba jël na loxoom teg ci bëtu sëñ Mor Abdoul Karim Touré ne ko Abdoul Karim mu ne ko Mbacke mu ne ko loo mën di gis Ibra Fall raw na Abdoul Karim mu ne mu jël loxoom teg ci noppam ne di dégg Ibra Fall raw na di dégg gis doo nga fi am lu ko may jéggi nga gis mu ne ko daf maa teg fa ma saa teg kon Baye Fall yow teg xaalis bu sa fonk le moo tax suñu taxaay yàlla na fi yàgg dëwél dafa wax ne man bépp Baye bu dëggal yaa ma gënal sama jëm oh. bàyyi xel ci yi duñu morom ñun war a jox seen cër lañ mm-hmm. sëñ si di waxtaan na ko nag dënd yooyee nga di ko fa yëngu foofee koor gi def koor gi ba mu jeex koor yi ba mu ñaar fukk fan ak ñett yi di tey ko nga defee fa màggal ga wax ma ko dang ma ko yónnee ma ci yebal soxna Safa sama taaw wala si Cheikh Bara yàlla ko yàlla suñu borom dolli leen waaye nag tey ji dama bëgg googu ca kër la nga indil ma ko lii ci Touba te saxalal ma ko lii mooy sababu su màggal si am Cheikh Diallo fii ci Touba Darou Khoudoss Cheikh Diallo ay commentaire amoon nañ ci waaye dañ leen su ma ko nottu def fii ko Serigne Sidi Muxtaar muy Serigne Touba di doomi Serigne taxaw na it moom Cheikh Sidi Moutar seere ci moom moom mii fekke naa ko suñu saam mii fekke na ko suñu jax ami fekke na ko suñu am kàddoom juróom la ñuy wax sax ndax moom mooy wax communication bi suñu si ñu ngi leen di jégalu ndax ñoo ñu wax loo ndax lépp seen loxo la jaar waaye mu ne daa am lu mu yem ndax toog ma toog suñu wooñu kenn ku ne mu am lu la maam njëri jàllu laay laxasaay gu mu takkoon ba dégg tur jàll bu doon kenn tëgg ci juróom-ñeent mu fi di jàll maa lay jàppale ku dugg sa yéen man si jil muxtaar la ngay nekk sëñ jil muxtaar mooy kan mooy doomi sëñ baara ji nga xam ne neen na seen xel dal am na lu sëñ Tuubaa def wax ko mu ne mu ngi rat ci man mm-hmm. mooy juróom-ñaari juróom-ñaari mm-hmm. juróom-ñaareel bi doomi sëñ Baara mm. juróom-ñaareel bi xalifa sëñ Tuubaa mm. juróom-ñaareel bi Sooroon mm. dem ci juróom-ñaareel bi weer sëñ Sidi Muxtaar du morom morom kooku bi mu fiy jógee turam yooyu nga gisoon mu doon ko ma ma fal saa yu nekk mi nga ñaan yàlla saa borom yërëmal jaam ñi yàlla yërëmal jaam ñi ba yàlla jëm ñi di moom ndax ku dem ma dem la sëñ Muxtaar wax Seex Jàllo la waxoon Seex Amdu la waxoon Seex Jàllo la wax ku dem ma dem ku dem ma dem ku jënd di dem da nga ànd ak ñoo dem yàlla ñu ànd ak ñoom dem yàlla def annonce bi ne képp ku ñëw mucc ku jëf ñokk ñëw ngeen mucc ngeen jëfe ci des jëf ngeen da ngeen yokk ba Tuubaa xaadimu barke Cheikh Seck Diagne Thank you.